maanaam weñ kon alquranul karim waxna ci ay man ay mbir yo xamantene ci weñ ngir woné manam kéemaanu borom bi subhanahu wa taala ak màggaayu borom bi subhanahu wa taala mun ya yaa an-nas duriba mathalan fastami'u la inna alladhina tad'una min duni illahi lan yakhluqu dhubaban walaw ijtama'u lahu wa in yaslubhum adh-dhubabu shay'un la yastanqidhuhu minhu ضعف الطالب والمطلوب وما قدر الله حق قدره إن الله قوي عزيز من يا أيها الناس إيجي نتني ضرب مثال يا الله سدلنا لين أب مثال إكزام ما نام أمنا نن بيرن تور نو مثال أمنا بيرن تور بدل إكزام كسي moy si dedet ah parabole ok indil na ko fastami'u lahu di ngeen koy déglu bu baax mu ne innal ladina naka gaay nga xam ne tad'una ñoom ngeen den di woo di leen jaamu di leen ñaan min dunillahi te ñu wuteeg yàlla xam leen ne lan yaxluqu zubaban mënuñoo bindu we weñ abadan duñu ko bind mooy lan baatu lan ci arab loolu lay tekki mooy lii du am abadan bu la wax ni arab boo ne ko may ma mun ne la laa oxtika du ma la may mën ngaa yaakaaraat dellu siwaat di ñaanaat mais bu a la lan oxtika du ma may mukk lay tekki mooy jaru gi dellu siwaat bul yaakaaraat weñ yi mu ne alxuraan innal ladina tad'una min la lan yaxluqu zubaban ñi ngeen di jaamu te bokkuñu ak yàlla ñi ngeen di woo di leen yaakaar te di leen ñaan te bokkuñu ak yàlla lan yaxluqu zubaban ñoom mënuñu bindu weñ weñ walaw ijtama'u la donte dañoo bokkoon di ànd xam nga tey subhanallah tey bu ma jëlee ay bant teg ay bant teg ni damay damay misaal dara mën naa cee mën naa cee misaal nit bant ah du dëgg mën naa cee misaal lan ay fas xar yooyu yëpp mën naa ko def mais ndax mën naa cee misaal weñ ay bant tellement dafa tuuti ak forme bi mu yor ak yooyu noonu lu wala wit tama wala même nit ñi bu ñu dajaloo woon duñ mën a bind lu mel ni weñ wa in yaslubhumu dhubaabu shay'un su leen weñ bi rikkee ci ñoom dara Moy salab salbu moy riki, riki moy, mo ñew fekk la nga yor ben affaire man nangu ko ak doole par force loloy rékki ba bare suma ma koy nangu dama koy nangu ak doole xecc mu ne weñ nek tay weñ nit ki su masalan yor mangom di lek weñ bi ñew teggu ci rékki ben parti ci mango bi wa in yaslimu zuwal shay la yastantu bu min ñom duñu mëna fexé ba retirer wat li wéñ bi jël ha yalla ne da'fa talib wal matlub ki ñi sakku dafa dafa niw doole ki sakku da niw doole manam ki sakku la ñëkke dafa niw doole ki ñi sakku da niw doole ki ñu sàkku ci mom dafa néew doole yalla rek man moo am katan kooku subhanallah xolal weñ bi rek manam pour wax la ne la yow ya da nga ya néew doole yow nit nit ki dafa doole ba hatta subhanallah weñ bu ñewé dal ci mbirum bo xamne mom bëggul woon weñ bi laal ko munul fexé fexé fexé ba weñ bi du ci dal lool munu ko déjà weñ bi mu ñewé jël ko ba dem mom munul fexé ba wat li weñ bi jël ci affaire ci mom ànd ak ne aaye boobu ci zahiram bi nii rek doy na kéemaan guy wane màggaayu borom bi subhaanahu wa ta'ala rawatina bu ñu demee ba xam ne ndekete weñ moom ni ko yàlla bindee ni ko yàlla bindee biologiquement ni ko yàlla bindee soo dalee ci benn affaire su koy jël moment bi muy jël affaire bi ci la koy tasaale maanaam moment bi muy jël mbir mi ci lay yàqee maanaam ci lay ci lay décomposer affaire bi en même temps de de telle sorte maanaam même bu ñu réussiroon jël ko teg ko ci microscope ak yooyu fexe bay génnee ba génnee liy weñ bu jël duñ ko amaat mu nekkat intact comme ni nga xamante ne noonu lañ ko fekke woon maanaam noonu lañ ko noonu la ko jëlee woon maanaam noonu balaa mu koy jël noonu la meloon yàlla ne daaw fa taalib wal matlub kii sàkku dey ak ki ñuy sàkku ñoom ñëpp dañoo néew doole yalla rek am katan motax tax benn buur dafa tok bam yag yàgg benn bés mu laaj man dama xamul lan la weñ di jariñ manam weñ dal la xamul lu muy jariñ weñ mu am benn borom fam xam bu ne ko xana pour loosu bour yi beew ndax xam nga bour bu beewee même nit ku dul bu bewe du beug lu koy déranger lu manam légui nak wéñi suñ fi nekké nga tok bëgg a noppalu mu nan wiw wiw wiw wiw wiw wiw <laughs> da nga daal commencé commencer lot commencer sonn léeg-léeg mu jékki-jékki dugg fo xamante ci yaram nit lu mu dugg fu dugg ci biir yéré bi mu war ko faxas mu dugg ci un ci bakkan bi rek mu dugg ci bakkan bi ak yooyu ak yeneen ak yeneen ak yeneen yuy wane ne nit ñi dañoo am faiblesse maanaam yooyu day wane ni nit ki dafa war a modeste par rapport ak rawatina par rapport ak ma boromam subhaanahu wa taala c'est que weñ bii moo koy të moo tax waykat ba ne laa tahqiranna saghiran fi muxaasamatin innal ba'udata tudmi muqlatal adami maanaam muqlatal asadi mu ne bul xeeb mukk mukk mukk ku ndaw mu ne fii mu xaam ma fatin boo leen dee nekk di wuute maanaam werante wala xuloo lu mu lu wa lu ki ngeen di ki ngay weranteel mbaa ki ngay xuloo lu mu tuuti tuuti bu ko xeeb ñu ne ah lan moo tax ak ki ngay xeexal tamit ki ngay xeexal bul ko xeeb de bul ne ah kii de moom benn boucher laa koy def déedéet mu ne parce que innal ba'udata yoo yoo gis ngeen ni yoo toll mook ñoom weñ ñoo tolloo tudd muy muqlatal asadi day day day day xonkloo bëtu gaynde gaynde bi day taxaw yoo ñëw màtt ko ci bët bi <laughs> ba mu xonk dëkk ko lan pour lan maanaam loolu boo ko gisee dangay daf laa mën a ëmbuloo nga xam màggaayu yàlla bi mën lii xoolal ñaari forme ñaari yi ni ñu maanaam euh, euh, euh, disproportionné ànd ak loolu kii nii la koy def yooyu yëpp yàlla daf leen bind di ci jàngale mbir yooyu noonu xoolal subhaanallah ñay ni mu toll xoolal xoolal nag xoolal nag ni mu toll xoolal gëléem ni mu toll xoolal fas ni mu toll ak mbaam ñooñu ñëpp yàlla tàggat leen ba nga xamante ne ab xale bu ndaw moo leen di jël di leen wommat xale bu ndaw mën na jël wommat leen léegi yóbbu leen fu ko neex liggéey loo leen lu ko neex te subhaanallah xoolal ah, muus xoolal ñoom weñ ak ay animaux yu ndaw ñoom si ndax ñooñu pourtant ñoo gën a tuuti te pourtant munoo leen yàlla tàggatu leen comme ni mu leen tàggatee ñële yooyu yëpp mu muy wane teraanga gi nga xamante ne moom la defal ba de telle sorte ko bu la wanee subhaanallah xoolal tey bu doon si ndax yi jënnax yi ak muus yi bu doon dañoo soxor ni gaynde soxore xoolal subhaanallah nit musiba bi koy dal bu doon weñ yi weñ yi dañoo soxor ni gaynde soxore imagine loolu kon nit ñëpp dee de kaw suuf kenn doog fi desati moo tax sama borom subhaanahu loolu yëpp day wane màggaayam ak terangam nga xamante ne ñi nga xamante ne dañoo soxor bay gaañe même bu dee ay animaux yu ndaw lañ yàlla daf leen yóbbu ci àll ba bàyyi leen feen ak seeni njariñ am na kenn ci boroom xam-xam yi ku fekkee benn jotaayu nit ñi di werante di wax di wax kenn ku ci nekk di wax ne weñ amul njariñ weñ bi ñu nekkee di jàng nii mu ni amul njariñ weñ wallaay bu amul woon njariñ lu dul suñu xadis bi rek doyoon waaye weñ am na njariñ kay mu ne leen ahan kay bu leen wax loolu xool leen médd mi ñu gis médd mi subhanallah xoolal médd bu deewee weñ yi ni ñuy gaawee bu commencé tas ni ko weñ yi gaawee lekk ko léegi mu jeex sax yi génn lekk ko mu tas mu jeex xet gi dañ maanaam yooyu ay animal lañ yoo xamante ne peut-être mën nga leen gis à première vue nii dañoo lakkale dañoo sonle nangam nangam mais am na njariñ bu tax suñu boroom subhanahu wa ta'ala bind leen bàyyi leen ci kaw suuf yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne iza waqa'a zubaabu su weñ rotee fii sharabi ahadikum ci naanu kenn ci yéen sharab mooy naanu lu ñu mën a naane am na riwaaya bu ne fii ina ahadikum ci ndabal kenn ci yéen baat boobu moo gën a matale am na riwaaya bu ne fii taami ahadikum ci ñamal kenn ci yéen parce que ñam naanu naanu da ciy duggaale du dëgg boo ne donne-moi de la nourriture mën nañu bu ku indaale boisson ku indaale boisson est-ce que dañ naan ko li nga def li nga indi laajuma la ko man nourriture rek laa la laajoon kenn du ko ko wax te bokk na ci liy dëgëral maanaam boobu mooy li alquran wax bi mu naan fa man fa ah, man yat'amuhu fa laysa illa man iqtarafa ghurfatan bi yadihi mooy taaluuta bi mu ànd ak ak euh, ak gàngooram mu ne bu kenn laaj laal inna allah mubtalikum bi naharin mu ne yàlla dana leen nattoo ab dex fa man yatam boobu weeru koor lañ nekkoon nag comme nii mu ne bu kenn bu kenn laal ci ndox mi fekk ñu waroon xeexi jeg ñoom jaaluuta ñoom ñoo leen ëppoon doole ëppoon leen arme moom la ñuy wax Goliath ci tubaab booba Taaluta mi ngi àndoon ak yonent yàlla Daawuda alayhi salaam mu nekk xale ak ci armée bi armée boobu dañuy wax ne ñoom 313 personnes lañ comme ni nga xam ne noonu la yonent yàlla alayhi salaam nekkee 313 ni ki noonu noonu la ñan ñi fekke woon Badar nekkee 313 mooy jay sun waaw <laughs> ah ñoom ñoo trois cent ñooñu nag parce que avant loolu ñu bëree bari lañ woon du ñoon trois cent treize kese bi ñu bari lañ woon mais nag ñu dem ba ci yoon bi ñu ne dañu mar mu ne leen inna allah mubtaliikum bi nahar am na nag dex gu ne ci kanam yàlla dana leen kon ko nattoo fa man yataam ku ci mos fa lay samin nii du bokku ci man maanaam ci ta taama la utiliser baatu taima bi tekki ñam maanaam ak ci baat bi jóge ci a taam fa man yataamu ku ci ñam maanaam ku ci lekk maanaam muy naan naan la ci jublu fa laysa minni illaa man iqtarafa ghurfatan bi yadihi wa man ah, mu ne wa la lam yat'am ku ci mosul fa innahu minni kooku ci man la bokk mu ne illaa xanaa man iqtarafa koo xam ne day as ghurfatan ak as bi yi ci loxoom rek mos ndax bu mu ne munu ko muñ mu xanaa as rek ci ndox ci loxoom naan ci bi ñu demee nga gis ñu bëree bëri naan ci mais comme ku ci naan dootoo bokkati ci armée bi parce que armée bi pour nga bokk ci foog nga am détermination yàlla jaral la dara gars yi naan ci acca mu bàyyi leen fi dem li ñu ñoom boobaa 313 rek ñoo ci desoon ci li nga xamante ne moom la booloo ci borom xam wax rahimahumullah kon loolu day tegtale ne kon ñam def na ko tuddee lan naan def na ko tuddee lan ak ñam ci kaw loolu kon baatu fii taami ahadikum ci ñamal kenn ci yéen moo gën a yaatu baatu fii sharabi ahadikum ci ndoxal kenn ci yéen ci naanu kenn ci yéen waaye léegi kon laaj bi mooy lan moo tax al imaam al xaafis ibnu xajar rahimahullah riwaaya yi ni yëpp fi hadisu abu hurayra radiyallahu mu taamu fii ina ahadikum nekk ci ndabal kenn ci yéen fii taami ahadikum nekk ci ñamal kenn ci yéen fii sharabi ahadikum nekk ci lan naanu kenn ci yéen nekk fi mooy boisson mu tànn baatu fii sharabi ahadikum bàyyi ba bàyyi yi ci des parce que ci buntu ndox lañu ne mu tàng ko loolu day gën a dëgëral lan li nga xam ne moom la waxoon ne lan xarartuhu taxriran baalihan téere bi damaa segg muy segg goo xam ne dafa jéggi dayo mu ne kon nag fal yax mishu ci reene rewaay mooy fam xuluhu na ngeen ko ci nuur wala na ko ci nëq kon bu boobaa weñ bi su ñëwee dal li nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam digle mooy nañ ko ci lan nañ ko ci bës mais léegi laaj bi mooy est que bës boobu ku ko deful da ngay am bàkkaar wala doo am bàkkaar parce que yenent bi sallallahu alayhi wasallam moo joxe ndigal lu dëgg léegi nag est-ce ku ko def dañ naan la yow kat li la yenent bi sallallahu alayhi digaloon defoo ko kon nag am nga bàkkaar waaw wala déet boobaa tontu bi mooy lii soo ko deful amuloo bàkkaar waaye nag bu ko lekk parce que dangay ngay indil sa bopp ay feebar maanaam kon fal yar misu na ko ci nëq ci biir parce que alxamsu alxamsu mooy nuur dem ba dugg ci biir mbir maanaam dem ba de nekk ci complement comme tey nit ki su duggoon ci biir géej ba gisatuñ ko dañ naan xamasa filmaa yi dafa nuur ci biir ndox mi summa topp nag mu ne li yet li yanzihu na ko rocci ci beneen riwaaya li yatrahu na ko sànni na nako na mooy na lan nako sànni lan moo tax mu ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne fa inna ndax lii mooy wane ne du farata parce que su doon farata parce que parce bu ñëwee ci alquran insha allah dinañ ci ñëw ci buntu euh, njàpp kitaabul wudu premier ci baabul wudu premier xadis bi incha allah muy xadis Abu Hurayra boobu radiyallahu lawlaa an shaqqa alaa ummatii la amartuhum bis-siwaak ma'a kulli salaa ah, ma'a kulli wudu'in incha allah buñ ci yegsee dinañu ñëw ci ndigal yi ah, ak forme yi ñuy yor incha allah ci usul mais fii ñu leeral ko fii rek mooy ndigal googu nga xam ne moom la yeneen ci joxe sallallahu alayhi wa sallam fii jubluwu ci maanaam ak obligation. ndax li wone ni du obligation li wone ni du obligation moy moy lan lan moy wone ni du obligation. hein lan moy wone ni ma jël ko duggal ko ci biir génne wat ko lolou du obligation lolou amru irshad la manam daf lay orienter orientation la ndax limu ci tek mokoy wone ndax ni fa inna fi ahadi janahihi da'an wa fil akhir shifa ndax fa inna li wér boor mooy fii ah fii ahadi nekk na ci benn ci janaaxay yi ñaari laaf yi daa am ak tooke moo ci ne tooke moo ci nekk am na nag am na euh, euh, euh, beneen beneen laaf maanaam maanaam tooke ci beneen riwaaya mu ne fa inna fii fa inna summa fi ahadi janahay zubab ndax mu ne toog mu ne poson dafa nekk ci benn ci laaf yi weñ fa inna fi ahadi janahay daan mu dafa am lan feebar tooke moo ci nekk wa fil axari beneen laaf bi shifaan lan moo ci nekk saafara léegi laaj bi mooy comme li alxattaabi doon wax rahimahullah mu ne am na ñoo xamante ne dañoo riir riir riir ci jamono wala boog ñuy riir riirlu ñu naan woy loolu logique nan la poson di nekkee si benn laaf bi et eh beneen laaf bi nekk am saafara ah loolu dafa contradictoire mu ne te xamul ne yàlla day boole ci jëmm ak tàngoor akuk seddaay tàngoor ak sedda ñoo gën a contradictoire que lan que poison ak euh, saafara au moment où ñu sax côté biñu fété ci yaram bi hein waaye yalla non la bindé wéñ manam kon ben ben laaf bi dafa amé lan toké bi ci dess dafa amé safara loolu motax tax euh, am na benn médecin allemand mu ne moom bi mu gisee ni mu xamee euh, euh, ne góom yi maanaam ne ndekete góom yi dafa seetlu woon ne maanaam ci deuxième guerre mondiale bi ne ñi nga xamante ne par exemple bu ñu leen dugal ci pour faj leen bu ñu leen dugalee ci oto ci ci ci clinique bi ci ci hôpital bi pour faj leen de am ñu bari ñu des ci biti ñoom ak seeni góom léegi nag bu ñu leen waree jël indi leen toxal leen maanaam maanaam bu ñu bu ñëwee di faj gars yi ñenn ñi ñu bàyyi leen nii dafa seetlu ne dañuy jékki-jékki ñee seen yos yi xaw a yéex a wér mais ñi nga xam ne ñoom lañ fi bàyyee di di xaarandi ñoom seen yos yi day tàmbalee di commencer euh, cicatriser wu tuuti di commencer wér mu ne ma daal di xool def analyse yi xool lan la ma gis ne fii normalement du environnement bi du ngelaw li mu wër wër wër gis ne ndekete li ci weñ yi di dal la weñ yi buñ ci dalee comme ñoom ñaari laaf lañ am benn bi poson la bi ci des saafaral maanaam <laughs> maanaam weñ yi niñ ciy dalee noonu ndekete ñoom dañuy maanaam ñoom ñooy bàyyiwaale ci kaw ñoom dañ ciy bàyyiwaale seen tooke bi mais dañ ciy bàyyiwaale li nga xam te mooy anti comme ni ñu defaree vaccin yi mooy dañuy bàyyi benn ah wala antidote la ah. anticorps anticorps la voilà maanaam dañ ciy bàyyi poson bi mais dañ mais buñu ñu poson bi comme dañ fay bàyyi walé lan anticorps yi manam li fajj affaire bi comme niñu ñu vaccin xam nga vaccin non lañ koy defaree fièvre bu nek biñu jël microbe bi nga xamantene mom moy tax nit ki fièvre buñu jëlé microbe bobu en ah, señ Babacar <laughs> buñu jëlé microbe bi <laughs> ah ñu bayiko ba muy fièvre ba muy ba nga xamantene wañé ko manam dem na ba ba ba ba faible moom la ñuy jël nag di ko di ko jam nit ñi maanaam loolu la ay microbe la maanaam euh, vaccin yi ay microbe la mais dañoo xam ne bu ñu jamee nit ki microbe boobu anticorps yi ci yaramu nit ki dañuy réagir bu ñu réagir comme man dañuy multiplier wu nag léegi bu ñu multiplier woo comme que ñii microbe yi dañoo néew doole bu boobaa microbe yi maanaam anticorps yi ñooy lan dañuy dañuy dañuy dañuy gañe xeex bi ci saasi ci kaw lolu nak microbe bobu dootu meuna dug manam maanaam bobu boobu dootu mën a ba gaam nit ki parce que mom amna ay anticorps yu deuguer yu mu défar ba paré ñu taxaw di xaar yo xamantene ne microbe boobu fu mu duggatee gaa yi escanté ko non noonu défaré vaccin même principe bi nak mo amone ci goomu gaay lool motax amna ki am Atiya euh, ibn mohammed Salim dégg naa ko muy nettali mu ne rahimahullah mu ne dafa am benn jour benn médecin bu mu amaloon euh, rendez-vous ñu toog di war a waxtaan parce que moom dafa def ay études yu ci ci ci wàllu médecine ah nee ñuy waxtaan weñ ñëw ñuy naan ñuy naan euh, ñuy ndékki maanaam ñuy ndékki weñ ñëw dugg si ci biir weñ ci biir euh, kii bi ci biir kaas bi rek waaw rek mu daal di koy bës <laughs> dugal ko ci biir génne ko sànni.

li nga xamantene poisson poson la ak bi nga xamantene mom safara la té bu safara bi mo upp doole bu poisson bi manam safara bi mu andal mo upp doole poson bi mu andal mo rax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne kon lan ko duggal ko ci bir wul ko ragal wul xeexlu parce que nak am ñun ñoo xam dañ koy xeexlu ñoñu kenn du na len bo len deful li ngeen def moy nga yenente bi sallallahu alayhi wasallam kenn du leen ko wax mais rek sauf rek li nga xam ne moom lañuy ñu xam mooy lan ànd ak weñ fu ne la mën a dal on est d'accord ànd ak loolu waaye laaf bi nga xamante ne moom moo amee lan saafara saafara soosu dafa noot mbooleem poson yu weñ bi mën a indaale ci kaw loolu kon ci lañuy ñuy xamee ni ah incha allah ñu yeggale mu ne kon foofu fil aaxiri shifaan mu ne akhrajahu al-Bukhari imam al-Bukhari moko solo ci haditham comme niñ ko waxe sank indi nga ko ci ñaari parti ci haditham ci Bad'ul Khalqi kitab ci kitab Bad'ul Khalqi ak kitabu Tibb kitabu Bad'ul Khalqi mooy tàmbalik bind gi sa borom subhanahu wa ta'ala ni créer univers bi ak yimu bind fofu lako fofu lako classer benen bi moy kitabu Tibb moy medicine parce que dafa am téré bo xamantene le livre de de la médecine le tuddu ci kitab sahih imam al-Bukhari rahimahullah ni non imam Muslim ñom ñep am nañ téré yu mel non ay kitabul ashriba imam am imam comme par exemple imam euh, euh, Abu daud rahimahullah fi kitabul at'ima lako indi ci téré ñam kon rek ce qui veut dire que ni hadith bi mën nañ ko indi ci kitaabu tahara comme fi ci buntu lat comme fii mënoon nañ ko indi fan ci livre médecine yi wax affaire médecine yi mënoon nañ ko indi ci li wax affaire ñam yek nani et cetera ba pare mën nañ ko indi ci liy wax tamit maanaam lan mbindug borom bi subhaanahu wa taala mu ne kon ah mu ne wa abu daawuda imam abu daawuda tamit solo na xadis bi wa zaada mu yokku ci ne fa innahu moom wañ gis nga moom wañ buy dugg yattaqi day moytandikoo bi janaaxihi ci laafam alladi bi nga xam ne fii ci la nekk addaa u saafara si xool leen subhaanallah ba ah bi am sa bi am tooke bi am tooke waaw bi janaaxihi alladhi fihi daa buy dugg moom day moytundi ko da koy fekko subhaanallah kan moo may xel weñ ba muy jël buy dugg mu xam ne bii laa war a dugal bu ko defee boobu bu lakkee garaawul boobu lu ko dal garaawul nga xamante ne daf koy dugal boobu lay dugal ngir ko pour beneen partie yaram bi mën a sauver wu kan moo may xel boo kan moo may xel weñ woowu ku dul xanaa ki nga xamante ne moo bind asamaan ak suuf mi ngi noonu loolu day tektele tamit ne sama borom subhanahu wa taala mbir mu nekk comme ni wax ata kull shay'in khalqahu thumma hada mom mbir mu nek moko dox ak bindam te bind nako nam ko wara binde dans l'imper dans la perfection allah allati aqana kull shay'in yàlla mu ne gis nga mbi yàlla gangi mom mi nga xamantene mom mo rafetal parfaire mbolam li nga xamantene mom moom la ko defar ci ni mu gën a excellent we subhaanahu wa ta'ala moom moo may xel boobu weñ ba nga xamante ne moo may weñ boobu xel maanaam ñaari wax yëpp mën naa jub moo may xel boobu weñ jub na moo may weñ boobu xel jub na nga xamante ne subhaanallah day da ngay toog benn place dégg nga nga xamante ne weñ gi ak yooy ak ñeneen ñi nga xam ne ay animaux lañ maanaam kon ñoom yàlla may na leen xel mais c'est que seen xel dafa tollul comme xelu nit yi mais am nañ xel te nit ki noonu sama borom subhaanahu wa lii day wane màggaayu ne moom moo bind lépp parce que bu fekkonte ne par hasard la mbir mi amee kon mën naa am benn weñ bu ko réussir mais weñ yëpp mel noonu kooku doon ko man